بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جناب ني سانت يالا جولي شرنت بي بوتيد بي صلى الله عليه وسلم ني بروفيتي تي بني جولي تاك سان با بار دي فاتالي باسكو فيب فو خامني ني مولو جولي دنج فو داجي دينا باخ يو خامني ني جيل بن dix minutes fàttali benn point boo xam ne nit na jëriñ nit ñi tey nag suñu fàttali mu ngi jëm ci lan mooy jokkoo nit ki muy ñaan yàlla ban privilège moo nekk ci nit ki am bëgg-bëgg wala am jafe di ñaan yàlla yàlla di ko may maanaam incha allah loolu la ñuy bëgg a waxtaanee parce que yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax adduwa adduwa huwal ibada dëgg-dëgg jaamu mooy kiy ñaan donc yàlla subhanahu wa taala ci màggayam ak ci mbaaxam daf ñu may privilège boo xam ne mooy mu teg ñu nattu walla mu mu mu teg ñu ci kaw suuf ngir ñu jàmm ko mais jàmm bi dafa war a ànd ak ñaan donc ñaan privilège la boo xam ne nit bi daf ko am donc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tamit ne nit ku dul ñaan mooy koo xam ne ni ay jëfam doy na waar parce que lépp loo xam ne da nga koy def danga war a ñaan loolu mooy tax euh, euh, euh, li ngay def mu am sens léegi ñaari condition lañ jàpp ne que bu nekkee da ngay ñaan moom nga war a dajalee ngir ñaan bi jàpp mooy ñaan boo xam ne ni boo koy def du dox mbokk parce que munoo ñaan ne yàlla na sama xarit bi dara dal ko loolu kenn du ko ñaan deuxième condition bi mooy ñaan boo xam ne nii bàkkaar takku ko donc booy ñaan yàlla boo bëggee sa ñaan bi nangu il faut ñaari condition yi ñu réunir ko condition bu njëkk bi mooy condition moom laa wax léegi mooy nga bañ a ñaan diggante ak sa mbokk tas wala ngay ñaan yéene nit ki lu bon loolu mooy bu njëkk bi bu ci ñaareel bi mooy boo koy def nga setal nga ngay set ci bàkkaar mooy boo koy def na la fekk nga la fekk vraiment say bàkkaar néew comme ça incha allah yàlla nangu sa ñaan bu ñu jógee foofu ñu wax ne ñaan yàlla ci ñetti condition la koy nangoo condition bu ñëkk bi mooy da ngay ñaan léegi yàlla may la léegi loolu chaque jour ñu gis ko dara dala wala situation tegu nga ñaan yàlla may la léegi beneen condition bi mooy nga ñaan dara yàlla xam ne ni que bu la ko may léegi du gën ci yow yàlla reporté ko à plus tard mais yow doo ci xam dara te ñun suñu jamono particulièrement sama bopp laa koy njëkkee mooy dañoo impatient mooy dañuy ñaan dara léegi bëgg ko léegi bëgg yàlla def ko léegi hmm. alors que yàlla moom moo xam lu gën ci ñun ñun xamuñu ko ñun lépp loo xam ne moom la ñu mën mooy ñu jaam ko topp lu topp loo xam ne ni moom la fi yonent sallallahu alayhi wasallam bàyyi bu nekk yow da ngay ñaan dara nga ñaan ko yàlla bu soobee ne que peut-être dans cinq ans wala dans deux ans wala dans six mois la gën ci yow nga nangu loolu nga xam ne ni que loolu moo gën waaye doo ñaan léegi bëgg bëgg bëgg maanaam yëf ji sotti léegi donc loolu mooy deuxième condition mooy nga ñaan dara yàlla mi xam li gën ci yow reporté ko à plus bu njëkk bi bu mujj bi mooy boo ñaanee benn mbir yàlla day nangu ñaan bi waaye daf koy soppali leneen ñu joxe exemple mais exemple man ma bëgg kër may ñaan kër mais ba may ñaan kër am na fekk na ma benn wala ñaari doom yàlla xam ne ni que boo mayee kër daf euh, kër boobu bu ñëwee sama ñaari wala sama benn doom bi dañuy génn àdduna yàlla ñaan bi da koy nangu waaye duma may kër waaye sama doom bi wala sama sama jabar boo xam ne moom laa bëgg yàlla daf leen fi bàyyi mais duma may kër donc ñaan bi ñetti condition yooyu rek lay feeñee condition bu njëkk bi mooy nga ñaan léegi ñu may la léegi yàlla may la léegi condition bu ci topp façon bi mooy nga ñaan nga ñaan léegi yàlla yàlla reporté ko à parce que loolu moo gën ci ñetteel bi mooy nga ñaan nga ñaan benn yëf yàlla may la ko mais sous une autre parce que loolu moo gën ci yow te yow yëgoo ko waaw léegi ñu ñëw ci discipline ñaan mooy nan nga war a ñaane parce que du du façon bépp ngay ñëw bo jakkalok sa borom dafa am ay teggin yoo xamné ne da nga ko wara def ci ci boy ñaan bi ci ñëk moy boy ñaan nga nga commencé di tuddu turu yalla yu maggi yalla yow mi mag yow mi tedd yow yaa yow yaa gën ñëpp yow yaa gëna rafet yow yaa mom lepp yow yaa yilif ñëpp nga tagg yalla bala nga ñaan sa ñaan loolu bokku na ci critère yo xamné ni discipline ñaan bo xamné boko défé inshallah yalla na nangu sa ñaan bi ci top moy nga gëm ne nangu sa ñaan Bo gëmé nek yalla nangu sa ñaan loolu dina bokk ci discipline yo xam dina tax yalla nangu sa ñaan moy ngay ñaan dara nga gëm ni ke li ngay ñaan hmm. inshallah yalla dina ko may te dina ko may ci ñet ci ci ñetti façon yi wax yi ma wax sank buñu joggé fofu moy nga am luñu wax qudurul qalb moy boy ñaan nga télu ci li ngay ñaan nga baña ñaan dara sa xel nek fenen yaa ci julli boy ñaan bo paré na nga télu ba ngay ñaan ce qui fait concentration bi ngay am nga am ko moment bi ngay ñaan booy ñaan tamit dañuy dañuy discipline ñaan bokk na ci ngay wax alhamdulillah booy commencé ñaan nga nga sant yàlla tudd yàlla comme ne nga ko waxee sànq glorifier ko balaa nga kaa ñaan loolu daf ci am solo ba ñuy ñaan tamit nee nañu ngay moytu di ñaan à haute voix booy ñaan parce que loolu Moustapha lu mu wax sànq di indi ngistal mooy booy ñaan nga ñaan ñaan boo xam ne nii danga koy def mais ñaan bi euh, à voix basse lay doon loolu bokk na ci discipline ñaan booy ñaan tamit sàkku nañ ngay tàllal sa loxo parce que yonentu sallallahu alayhi wasallam daf ko doon def moom buy ñaan day tàllal loxoom donc bokk na ci discipline ñaan booy ñaan ngay tàllal sa loxo waaw léegi ñaan bokk na ci tamit lu ñuy wax al iqtiraaf al iqtiraafu bi zanb mooy booy ñaan nga wone yow sa sa sa sa ñàkk solo sa doyodi ci kanamu sa borom borom suñu maam yu baax yi ñoom Seydi Hadj Malick radiyallahu taala anhu même ci Taysiir bi hmm. am na formule formulation xam noonu lay ñaanee mooy booy ñaan yow nga wane sa doyadi nga wane sa tuut sa sa sa tuutaange ci kanamu ki ngay ñaan parce que kooku moom mooy sa borom bokk na ci mooy lu ñu wax ci ci ci toujours ci discipline ñaan mooy alxabli abla taqaali mooy balaa ngaa ñaan nga baalu yàlla ba pare nga baalu yàlla ne yàlla maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay ñaan nga baal ma ci lépp loo xam ne def naa ko ci bàkkaar boo paree nga ñaan donc bu ñu koy misaal mooy koo xam ne nii par exemple balaa moo sol yére day sangu ba set boo sangoo ba set nga sol yére mooy loolu mooy nga baalu yàlla ba pare boo baalu yàlla ci bàkkaar ak say ak say doyadi ak say manquement ba pare nga doog a mën a maintenant ñaan yàlla li ngay ñaan yàlla may la ko incha allah léegi ñu ngi ñëw ci euh, maanaam période yoo xam ne ni maanaam ci ngay mun a ñaan moment yi ngay mun a ñaan bëri na mais dañ ci lim euh, quelque rek pour incha allah guider nit ñi nee nañu mun nga bu nekkee balaa ngaa tëdd danga amee njàpp nga tëdd ba xaaja guddi boo yeewoo balaa ngaa nelawaat diggante boobu mënul fa nga ñaan nga nga nelawaat loolu boo ko ñaanee incha allah yàlla na nangu sa ñaan ci diggante boobu nee nañu. béréb boo xam ñii dañ fay daje di tudd yàlla foofu mun nga fa ñaan comme bàyyi par exemple daayira fii nit ki mun nga fi ñaan boo fa fi amee sa soxla mu Moustapha buy waxtaan sax mun nga jël benn deux minutes yow sa borom kese parce que sa borom muy sa xol moo la gën a jege sa xol li ngay wax dégg na ko nga ñaan ko ci sa biir xol mu may la loolu tamit mun nga fa ñaan bokk na tamit ci euh, moment yi ñaanee mooy dernier dernier sujjóot bi balaa balaa ngaa taayaa dernier sujjóot bi boo sujjóotee balaa ngaa siggi moment boobu mun nga fa booy taayaa tamit moment boobu balaa nga ngaa ma mun nga fa ñaan yàlla may la nee nañu boo xaajee guddi bi en trois en trois tiers tiers bu mujj bi mooy balaa fajar diggante boobu mun nga fa ñaan li gën mooy nga yeewu même bu nekkee da ngay la nga def nga ngay la li nga mën nga def ñaar boo paree nga nga ñaan incha allah yàlla may la nee nañ tamit ci weeru koor baax na ngay ñaan nit bu noddee ba pare baax na tamit période boobu ngay ñaan baax na tamit incha allah buy taw boo gisee yàlla di wàccee xéwal mu jóge ci kaw asamaan bi ngay ñaan bu taw bi incha allah buy wàcc mun nga ñaan ci kii boobu neneen tamit boo jëndee ndoxu sam sam balaa nga kaa naan foofu mun nga ñaan donc ñu gis ne que euh, euh, euh, critère ñaan yi bëri na mais bi may mujjee mooy bi nekk ci ajuma boo jullee ajuma imaam bi buy ba bu demee ba toog balaa moo jógaat diggante boobu mun nga fa ñaan bu ci mujj mooy dernière heure bu tijaan yi utiliser pour xadara juma may profiter ci ci ci kii boobu pour ñaax sama mbokk yi ñuy ñëw xadara parce que xadara lu muy def ci tijaan dafa rëy tijaan yi lu tax ñoo ñu jël critère boobu ne ni ñi ne nañ ko def nañ ko def xadara juma c'est parce que moment boobu yàlla def ci nangu ñaan donc may exhorter sama mbokk taalibe yi incha allah ñuy teew ci xadara juma yi parce que c'est moment boo xam ne ni loo fa ñaan incha allah borom bi dina la ko may léegi maa ngi tëjee ci incha allah ñuy moytu ñaan koo xam ne dañ ko tooñ maa ngi tëjee foofu mooy ñuy moytu koo xam ne nii yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi moo wax nekk képp koo xam ne dañ ko tooñ bu ñaanee ñaan bi day aju te dina ñëw benn moment ñaan boobu ñaan ñaanal nit ki tooñ ko loolu dal ko allah kulli xaalin loolu da koy daal parce que dafa tooñ nit kooku ñaanal ko donc may may may may ñuy moytu surtout ci dëkk bi ñu parce que nit ki bu nekké dang ko mu ko mu ñaan dara waaw waaw waaw waaw mu am ñaari kii yu ñu def foofu rek eh, waaw xam nga fàttali am na solo tabaarakallah waaw yu mel nii léeg-léeg bu amee ñu ko mën a def rek insha allah lu am solo lay def waaw am na solo et puis waaw euh, maanaam al i'tiraaf bi zambi mooy reconnaître say bàkkaar maanaam taxaw sa kanam borom subhaanahu wa ta'aala ne ko yàlla man reconnaître naa tooñ naa la def nanga nangam comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni i'taraftu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta man yàlla man reconnaître na ne dama la ton donc reconnaître na def naa bàkkaar tooñ naa la mais nag yàlla ma kon yëngu ma jéggal faata faghfir li yàlla nga jéggal ma ndax fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ndax yàlla lii am ba des li wér dëgg mooy ni kenn du jéggalee bàkkaar ku yow wa lolu bi ci def moy at tahalli qabla at tahalli voilà naam at takhalli qabla moy euh da ngay dindi ci sa hein da ngay dindi ci sa bop jikko ñaaw yi ba nopi so dindé sa bop jikko ñaaw yi ba nopi ngay doga rango jikko yu baxi lool nak même ci bir ñaan dañ koy def manam boy ñaan da ngay ñëk ñaan yalla yalla manam jéggalu say bakkat waaw maanaam comme ni mu ko waxee boo tàmbalee ci sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jéggalu say bakkaar jéggalu boo jéggaloo ba pare nga def ay salaatu ala nabi soo paree nga daal di bàkk yàlla kañ ko ci turam yu mag yeeg melo bi yëkkatiku yi yàlla yow xam ne ni yow rek yaa man nangam yàlla yaa def nangam yàlla yow rek ah soo paree nga doog a wax nag maanaam nga daal di de di maanaam ah, ah, daal di ñaan li ngay ñaan loolu mooy yenn yenn ñaari point yoo xam ne voilà insha allah taala c'était pour gën ko xóotal mais sinon euh, jazakallahu xayran fàttali gi am na solo voilà léegi nag daa sëñ bi yow sa kii bi lan la woon. waaw man sama laaj bi. yaakaar naa peut-être ma xaar ba ñu dañ pare trois derniers hadith soo ko laaj parce que waaw am na ko léegi. waaw mooy sànq bi nga expliqué lan moo tax alxaafis ibn Hajar Asqalaani indi bii hadith dix bi si si boobu position. waaw comprendre nañ ko léegi man la laa comprendre da nga gis ñaari xadis nekk avant day day traité rapport entre euh, animaux alors que yeneen tam trois xadis tamit si topp tamit day traité animaux animaux léegi la moo tax ñu séparé yooyu voilà loolu bismillah alhamdulilah wa wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yooyu effectivement bokk na ci question yi nga xamante ne moo tax euh, placement xadis bi fi mu ko def moo tax mu bokk ci li nga xamante ni moom mooy li gën a lënt ci question bi mais sauf que insha allahu taala élément réponse yi dinañ ci joxe ay élément de réponse yoo xam ne lii la insha allah mooy dañuy gis ne xadis yu njëkk yi même su fekkente ne day wax ci affaire animal yi xam nga tudd na affaire nit mooy fii nit yu bu sangoo ba pare desal est-ce que keneen dina ci sangu tudd na lool tudd na maanaam noonu dafa njëkk tudd nit ku dugg ci biir ndox sangu ci mooy ci xadis cinquième bi day tere bu kenn dugg ci ndir laa yaxtasil ahadukum fil ma'i daa'im wa junub bu kenn dugg ci biir ndox mu teg nga sangu ci fekk da nga amee janaaba lool tamit ba pare mu daal di wëlbatiku traité question yoo xamante ne dafa aju ci ñaari euh, euh, maanaam ci ñaari nit léegi bi pas góor ak jigéen bu bu ma sangoo ba pare est ce keneen ki mën na cee sangu wala déet mu traité question boobu mu wëlbatiku nag que traité animaux yi maanaam bu ñu naanee ci biir ndox mi ndox moomu nan lay demee voilà léegi très loolu moo tax d'ailleurs le fait que mu dugal ko ci diggante ñaari yooyu noonu loolu moo tax maanaam question bi di posé wu est-ce que dafa bokk ak yeneen ñaari xadis yi wala dafa bokk ak yeneen ñetti xadis yi wala dafa beru loolu moo tax question bi ñëw mais li nga xam ne moo mujj feeñ insha allahu taala mooy ne dafa beru parce que ani xadis yeneen xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci animaux yi tamit dañuy traité animaux bi animal yi d'une manière générale boo xamante ne ñoom dañoo dugg ci biir ndox voilà maanaam bii paax question bi maanaam c'est question ki beneen question la bu bokkul mooy tey ab animal bu ñëwee tàbbi ci ndox mais souvent question yi daf ko indi nii mais soo xoolee dëgg dëgg dëgg ah xadis yi bu ñu koy traité ñaari cas rek la ñaari cas kese kese kese lañ koy traité wala ñetti ka mooy lan mooy lu laab bu duggee ci biir ndox lu laab su duggee ci biir ndox ba pare soppiwu ko comme jën bi jën su duggee ci biir ndox mën na ko bañ a parce que ci ndox lay dëkk kooku est-ce que day yàq ndox bi wala de après mu traité beneen question bi ci beneen xadis bi ci tegu mooy mooy mooy mooy ñi nga xamante ne amuñu amuñu deret mooy maa laa nafsa lahu saa'ila amuñu deret guy wal comme ñoom yoo ñoom weñ mu joxe exemple weñ bu duggee ci biir ndox ndax ndox moomu day yàq wala du yàqu après mu traité question bi nga xamantene manam maanaam lu mu rek animal d'une manière générale ce qui fait que ñoom ñett yëpp mën nañ leen boole mu nekk benn groupe moy animal bu duggé ci bir ndox nan lay mel manam mm-hmm. animaux yoy nga xamantene ne bu ñu duggee ci bir ndox nan lañu mel question bobu dafa nekk des questions yo xamantene en général mom la borom xam-xam fiqi di mujjee traité surtout que dafa nekk lo xamantene ne non seulement dafa raar lu muy xew parce que tamit so xolé day day dem du général en de au particulier du général au particulier soo xoolee le fait que ndox di dugg di tuuru ci kaw sobe loolu moo gën a fréquent que ñu gis ab animal bu jógee fële rek dem tàbbi ci teen bi question ba pare nag soppi ba pare teen bi ba pare dee ci masalan dee ci question boobu ànd na la ñuy def teen parce que ñaar affaire mbir di la doon wax ci ñu boo xoolee toutes les trois trois hadith yooyu day aju ci wàllu mbir day wax ci mbir bu duggee ci biir ndox mooy mooy mooy bu njëkk bi soo seetloo xadis bu njëkk bu mooy mooy onzième xadis bi dafay wax ci ñaari mbir yu ñu daganalal mooy jën ak soccet soccetal li maanaam waaw mooy sottareel yeeg mooy njéeréer loolu par exemple midd la mais boo xamante ne dafa dagan dafa laab kon mu dugg ci biir ndox mu indi beneen ñett ñaareel xadis bi muy midd mais midd boo xamante ne amul deret bi wal mooy weñ mu dugg ci biir ndox ba pare mu daal indi midd d'une manière général mooy xadisu abu waqid bi radiyallahu anhu nga xam ne daf ni lu ñu daggee ci luy dund loolu medd la maanaam lu ñu daggee ci bàyyi bi buy dund loolu medd la maanaam boo fekkoon am xar nga dagg tànk bi indi fekk xar baa ngi dund nga dagg tànk bi tànk boobu medd la maanaam yooyu la la bëgg yooyu yëpp kon mais loolu boo ko xoolee loolu xadis bi ba bi jeex tudd ci baatu ndox amu ci mais imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah bëgg la bi mu la bëggee yee ci question medd yi bu ñu duggee ci biir ndox moo tax mu indi xadis boobu mais sinon xadis boobu mënoon a nekk ci beneen ci ci kitaabu naja ci ci ci li aju ci wàllu najaasa sobe yi ci but ba ci wàllu sobe la waroon dugg ak ci wala boog ci yuy wax ci wàllu mbedd lu ñuy rendeeg lu ñu rendiwul te duñu tur yàlla ak yooyu noonu mooy ci zaba xeeg yooyu mais indiwu ko foofu daf koo indi fii ci buntu ndox pour wax ne dafa am lu mu la bëgg xamal mooy de bu mbedd duggee ci biir ndox ndox moomu day daal di maanaam dafa am atte yu muy yor kon mu indi ñetti façon wird yoo xamante ne bu ñu duggee ci biir ndox nan la ñuy mel loolu mu traité ko te yooyu nag cas yu raar lañ comme tey ñu gis ne am xar da wala nit ki moo dugg ci biir teen bi dee na ci léegi état léegi médd la ma dafa dugg ci teen bi dee ci léegi nag médd la léegi nag àtte ndox boobu question yooyu ba pare beneen affaire am na ci mooy le fait que question yooyu ay xadiis yu leer ñëwuñu ci ah déedéet question yi ay xadis yu leer ñu ci loolu tax borom xoxo yi rahmalahu taala ñu ñu ñu am ay wuute yu bari inshallah dinañ ko gis yo xamantene ñom ñoo nekk ci hadith yoy loolu nak amana mom moy li nga xamantene mom motax mu jittal question bi nga xamantene mom mo gëna fréquent wallahu taala alam waaw bismillah waaleykum

allah salaam ndax ko ŋàññ wala dañ ko yedd waaw loolu dañ ko bàyyi en fait hmm. comme yenn fi saa saa dañ leen bàyyi leen ko ñoom dañ ko baax dañ ko bàyyi hmm. léegi bi ñu tuuree ndox bi ñu bi mu bi mu paree ñu sotti ci ndax yooyu yëpp am na ay questions yu bari yu nekk ci biir yoo xam ne insha allah taala bu ñu yegsee ci questions yi ñu nekk ci xadis bi dinañ ko gën a yaatal mais bi nga xamante ne mooy fee bi dañu dañuy étaler bi rek incha allah bi mu ñëwee tuur tuur fa ndox maanaam saw ci foofu noonu bi gars yi de ko ngaa ne euh, ku nekk jugee fële bëgg koo kii ah euh, saa sam ne bàyyi leen ko bu leen dagg saw parce que déjà xam nga kaw kaw foofu déjà tey kooku tey bu ñu ko jàpp commencé woon euh, kii rek tere kii rek ñoom ñëpp di ko saax saaxe day day da ngay gis mu commencé daw ci biir jàkka ji di saw ci ci eh, di continuer saw maanaam du benn place rek kay sobewu léegi mais parti di dàq ba pare saw ci kawam mën na ko indil ay feebar ak yeneen ak yeneen yenn saa sam ne doon kon bàyyi leen ko maanaam bàyyi leen ko bi ko bàyyee ñu sotti fa ndox après mu ne nañ fa sotti ndox ñu sotti fa ndox après nag dafa woo kaw kaw bi comme ni ñu ko waxee dafa woo kaw kaw bi ni ko nag lii kenn du ko def fii jàkka la tudd jàkka dafa am luñ fii maanaam lu tax ñu def ko fi dañ koo def pour julli pour di jang alpha pour ñu tok di di di di waxtaan waxtaanu diine ak di fi tuddu yalla di zikkat ak yoy lool mo taxoon ñu def fi jàkka mais kenn defu ko pour manam nit ñi di fi saw mom tamit bu fogon dafa fogon rek ne perne place ci yeneen place comme voilà mom mom bon comme kaw ga yoy amu fu voilà mom dafa jappon rek ne bon voilà <laughs> kenn benn place rek ci yenn place mais sinon lool fofu lool nit ñi fofu lañ yem ak mom dañ ko baye ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sallam Hvala. Salam. Sama bëggoon xam statut ndox bu fekkee comme xadis yonente bi salaa sallam di doomam bi génnee àdduna ba mu ne ndox bi buñ koy sang ñu def ci xaw ma kanfu kii waaw kanfu waaw sa dem yooyu waaw ndax ndox bi àtte boobu ndox maam taxur lay doon wala voilà naam xam nga zeyn xadis zeynab bi radiallahu anha xadis umu atiya la radiallahu anha nga xamantene ne Zey bi Zeynab genné aduna la umma atay radhiyallahu anha daf na Yonent bi bi Zeynab génnee àdduna ñom ñu war ko sang Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ne irsilnahu irsilnaha bi wa wa sidrin mun salaasan aw xamsan aw sab'an aw aksara min zalika in ra'aytunna waj'alna fil akhiri kafura waaw après mu ne fabda'u bi mayaminiha wa bi a'dha'il wudu'i min wudu'i minha yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne après mu dal fa ida faraxtunna fa nani? na bi sallallahu alayhi wasallam dane jël len ko ngeen sang ko bo len ko sang neen ko sangé ñetti ndox ñetti ndiak mais ndox mo xamanteni day and si ngeen def ko ñett wala jurom wala jurom ñaar am ci yeneen riwaya mu ne jurom ñent wala fukk ak ben mu ne wala lu ko upp xol len dal lu luy doy manam kon ce qui veut dire que ne le bëgg manam mu impair déjà le bëgg ñaareel bi aussi dafa bëgg mooy ndox mi matale mu ne soo leen paree fa iza faraxtun na soo leen paree fa azin na nii na ngeen ma woo mais dafa waxoon ne fabda'u bi mayaminiha wa bi a'dha'il wudu wudu'i minha na ngeen tàmbalee ci ndeyjoor yi mooy droite yi ak tamit cëru njàpp yi mu ne soo leen leen pare nag na ngeen ma woo waaw bu ñu woo ko mu jël yére bi bi mu sol moom la ko defale sangaay càngaay moom la ko defale càngaay léegi moom li muy laaj mooy àtte ndox moomu parce que question bi posé wu mooy est-ce que ndox moomu dafa yor àttey àttey ndox moo xamante ne dafa laabte laabalaate parce au moment où siddéem daf cee am ba pare daf bu mujj bi boo xam trois ngeen di def wala cinq wala bu mujj bi da am camphre la question mooy au moment néew ni koy sangee mooy ni nit kuy dund di sangoo ba pare néew sangaay gi ñu koy sang pour laab la parce que su nous woon pour laab parce que nous su par exemple ah ndox amul dañ koy tiimal wala le gour, dee ci jigen kese te jabaram nekku ci wala jigéen bu dee ci biiri kese te jëkkëram nekku ci dañ koy tiimal kooku dañ koy tiimal donc ce qui veut dire que ndox moom pour laab la kon xam nañ ne sangaay yi koy sang pour mu laab la Les question bi moi est-ce que ndox moomu ànd ne amna na si déem ne amna na est-ce que dafay continuer di nek lo xamne ne dafa laajte laabalaate en d'autres termes est-ce que mënon nako utiliser pour japp est-ce que mënon nako utiliser pour sangu farata waaw wala déet question boobu nag euh, réponse bi day nek comme li nga xamantene mbolo ci borom xam rahmatullah alayhi ku mel imam al-Qadi Iyad rahimahullah wax ci hadith bobu mune lolu du comme ni ko manam euh euh moy lan moy yaakar ne dañuy jël ci dem jàmb ko jàmb ba affaire bi fuur nga do ko def dedet yeneen bi daf ne bi ma'in wa ndox bu andak ci dem lolou muy teg na ko sangé ndox ak ci dem tay buma ma la sangé ko ndox ak ci dem manam ça ko veut pas dire que damay jël ci dem ko ci nang ko sangé ndox ak ci dem moy lan moy damay jël ñaar possibilité mo am moy possibilité bu njëkk bi pour mu continuer di nek lu laté la laabalaat parce que bu fekkente ne sik nekk ci ne su ko jambé ba mu baax ndox mi day changer dina changer caf koy wala xet gi wala melo kon bu boobaa loolu tekkuwul loolu li muy tekki euh, euh damay jël siddéem jël ndox diko sorti diko di lool ben ben la ce qui veut dire que ni dama koy sorti fuma rombu romb ko manam wala bok ma jël ñetti xobu siddéem lu toll lo xam dal daal du changer caf gi nii xet gi nii nelaw yi ma jël ko ma sangee ko ko mais su ma demoon tey ba cafka gi wala xet gi wala sobe wala wala xet gi wala melo bi soppee sikk nekku ci yoon doot mu ci mën a jàppooti te loolu mooy li gën a dëgg comme ni nga xam te noonu lañ ko nootale nga xamante ne ñu ngi jàng ñetti xadis yooyu mooy ñaareel ñetteel ak ñeenteelu xadis bi amma li nga xamante ne moom mooy euh, euh, fekkente ne euh, mm, ndox mi maanaam Euh, lii lii lii le fait que mu ne te bokk na ci lii gën a dëgëral lool mooy def ni ndox ak siddéem na ngeen ko def ba pare daal ni wajaal na fil axiri raa ci bu mujj bi nag na ngeen ciy def dégg bu boobaa fii la utiliser dans dedans na ngeen def ci biir kanf kon ce qui veut dire bu mujj bi sang gi ñu koy sang bu mujj bi du pour mu laab parce que laaboon na ci yu njëkk yi ba pare kon bu mujj bi du pour mu laab d'ailleurs moo tax mu ne xool leen rek lu leen di doy maanaam na impair te bu mujj bi na am camp mooy wane ne kon bu mujj bi dana fekk moom laab na ba pare dama ko ci sotti pour lam pour muy xeeñ lu neex ak yu mel noonu donc ce qui veut dire que ni ndox moomu day continuer di laab di laabalaate te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy lii li ràññeeku li ràññeeku ndax lan ndax différence bi am entre tahur ak taahir maanaam lu laab tey laabalaate ak loo xamante ne dafa laab kese différence boobu dafa exister réellement bokk na ci liy wane ni dafa exister mooy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bi mu naan ah, ah, ah, ñett juróom benn juróom benn ngi nii ci benn mu ne yàlla def ma koo jagleel mu daal di wax mu ne wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa tahura xarisu Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nekk ñaari saxiix yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa wa tahura suuf si dañ ma koo defar mu nekk jàkka ba pare dañ ma koo defar mu nekk lu laabte laabalaate liy tekki ne nag laab tey laabalaate tekk boobu moom ak laab kese du ñu benn moom mooy xadis boobu parce que lan parce que yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, xam na ne xeet yu njëkk yi suuf si dafa laaboon pour ñoom taahir la woon le fait que nag mii ba bu mën a laabalaate loolu moom particularité xeet bii la le fait que tey bu ñu bëgg ñu mën cee tiim donc ce qui veut dire que laab kese ak laab tey laabalaate am na différence bokk na ci li koy gën a dëgëral moom mooy premier xadis bi ñu gis ci téere bi moom mooy xadiis Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy gaa yi ñi xam te ne dañoo jóge woon ci ci ci géej ga ñëw ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innaa narkabul bahra wa nahmilu a minal maa'i fa in tawadda'naa bihi atashnaa afa natawadda'u bi maa'il bahri mu ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa ñun kat dañuy jóge dañuy dem ci géej gi dañuy braver la mer buñ ko def buñ demee dañuy euh, yóbbaale ñaata ah, ah tuuti ndox la ñuy yóbbaale parce que te buñ ko naanee buñ ko buñ ci jàppoo danay mar après parce que ndoxum géej gi kenn buñ ko léegi est-ce que dañuy jàppoo ndoxum géej gi yeneen saa saam ne innal inna at-tahuru maa huwa al-hallu maytatu géej moom ndox bi dafa laatee laabalaate ba pare méddam dafa dagan dagan naa le fait que mu ne ndox bi at-tahuru dafa laatee laabalaate ba pare insister ko par alif laam vraiment moom moo laatee laabalaate mu mel ni maanaam ngir dëgëral vraiment li nga xamante ne noonu la géej mel loolu mooy wane maanaam ne tahur ak taahir am na différence maanaam lu laat kese ak lu laatee laabalante am nañ différence ndax lan ndax gars yi ñom xamoon nañ ci seen xel sahaba yi radhiyallahu anhum xamoon nañ ne ndekati amna na différence parce que suñu xamul won ni amna na différence kon question bi poser ko dotul dotul amati valeur parce que tay buñ xamul won ni amna na différence le fait que ñu gis ndoxum géej di saf xorom ndoxum géej buñ to bo taxawee ni xool couleur bi du bok couleur ndox yi ndoxum géej yu bari di nek géej gi yu bari di ci dundu loolu moy li tax ñu poser wu question mais est-ce que ndox mi ta ju est-ce que nekku rek dafa taa dafa laab kese parce que xamoon nañ ni bu laalee